ma way kafab ab daram lal géej ba julli mu mat tabax dawul xablawul sëriñ saa ngi ma way kafab ab daram lal géej ba julli mu mat tabax dawul sëriñ saa ngi ku sëriñ bàmba bu jullee sax ci déeg dana déeg bu dee sayaan dana say ab diir sëriñ baa ngi ku dul sëriñ bii bu jullee sax ki déeg dana diig bu deg sayaan dana say ab diir sëriñ baa ngi li tax ñu naa sëñ bu mag bii duy atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon seere jëfam yaa ngi kii sax ci daaram la génne ibra faati saak cheikh ibra faal ak borom gaawaan mbërëm yaa ngi li tax ñu naa sëñ bu mag bii duy atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon seere jëfam yaa ngi dëkkam bii moo mag jumaam mag am ngiram gën a mag magam ñu naa ko magum mag sëñ bu mag baa ngi nangul na yàlla nangul yonen ba nangu na nit ñi ñëpp nag ci nangoom gi njiit lu laa ngi loo sopp loole dalay far soppi sopp na nag yàlla ak yonen ba ñu dal koy soppi may yaa ngi budul ko nag Bamba Afrique gépp jaamu xërëm moo raadu islaam ji tey jaagi dugub yaa ngi banoon yàlla yi ne Afrique bu kenn sëqat Bamba ni déedéet kudul moom noppi mbër maa ngi daa def na yonen ba def daa mu jawoote te gën aw nit sëriñ Bamba it tax mu jëm gaa ngi tubaab bi nag bu njëkkee woon sëñ bi kenn du xam jàmbaar yi ak ñii fi doon yëfu standard jaa ngi keroog ba ñuy siñe tey siñ na allahu do boor bàmbaani allahu akbar yàlla buur baa ngi numéro 4 la mohammed it araf ya di wallahu yax mu koy laaj kooka tey maa ngi ne sayam wi laa yanu tey saytaane yi bëgg a far ngërëm mii maa bañ danaa waat wàcc waat gaa ngi billaahi wallaahi sunnas Moustapha ak ñi ko roy danaa ko dundal dandal caaxaan yi gor saa ngi mu samp ndëndam ne mooy lislaam ji waaju ko fel ci lay mujjee fele samp bi yàlla buur baa ngi ku ñam la sëñ bàmba ñam jam jam ya jam yaramam ku daj la sëñ daj jam jam ya jam yaramam mbaa sax mu faatu ku naw sa mbër tubaab baa ngi moom rek a songoog tubaab bii nag lu mat ati at te attewuñ ko tewawul wàllu njool maa ngi te yoqiwul te yàqul derba saalitulit te yoqatul yuuxuwul kamit bu mat baa ngi mboolem ku toog tubaab bi wett ngaw ñaq nag moom nag muroo foog tubaab bi fët ko mër maa ngi sëñ bàmbakat dafa songoog yàlla yi ab diir nag bu yàgg te juumul mbër mu mag maa ngi maa yomba yomb la dem am ndam lu sell di kaat def leen ko muy ilimaan ni gars njiit laa ngi ku dem ba jeewal te jeeloo lenn jaali ñuy bokkam du seen màppandoo ni leen ko mam yaa ngi ku dem ba dawme dammoo déewoo rafoo tadawoo yow sun nga ñëpp salaan ngeen ron gu mag gaa ngi nasraan bi nag lu mu nas Seex Bàmba nocci nga ko nosru yi jox sa boroom ne leen biddiw baa ngi bu budul ko nag bàmba afrig gépp jaamu xërëm yow weer nga naa feq yi bañ weeru weer waa ngi bàmbaa fi leeral li lëntoon wannu léppi njariñ mooy jantum njolloor bu daj jox yi yépp puj baa ngi ba muy liwaa tubaab bi noonu yépp di ree di seen tujëllam ba seen yaakaar ju tas jaa ngi ba ñibbisee ñu ne kon waa réew mi yéen a ci des ku am pexem lor na wax neexal bu dun baa ngi noonam yépp daal di jógaat ñoom ñëpp nag lëkkaloo ànd ak tubaab bi lu waay xam wax ko dof yaa ngi Seex Bàmba jël laxasaa yu muñ ne fiit ci ndigam digam boroomam di kañ soppeem ba gor saa ngi ñoon di njariim li jar yéem nag ci bile barab ma leen di ree taxamuñu reetaan ya way yaa ngi raamu masiir yi ilaa njurbel la daa lesa siin lama yenoo la mu fay am fomm réer gaa ngi ñu jël jolof jal ko far moom nag mu jël fa jolof mboolem lu doon doomi soxna ak ceddo coow laa ngi ñu sangu gànnaar ni ay nit nag ñu weex duñu gëm ku ñuul ñu far defi ndiiraan naa sëriñ baa ngi fekkoon na it dellu woon na ndar ku nekk di dar gémmiñ ganaa kee fi jaaroon mbër mu rëy maa ngi ñu àgg foog ni dafay tiit nag mu sànni daram julli farakaam ya septembre ju ndar jaa ngi ca biir gouvernance gouverneur jaaxle naa ki dagam ñoo wax ne nañ delluwaat njaareem ngëlam laa ngi man de yéem naa ko ngir màggalam gi doon safar di defar mbooloo mi loo jëf ñu daal koy ful lu doon laa ngi addi sëriñ